en regardant un peu tey bu ñu tànnoon Boun Dionne man jàpp naa ne mën nga bàyyi. kan. Mohamed Boun Abdallah Dionne. kan Mohamed bàyyi ah, météo. non non. non mais dama lay wax rek tey bu ñu tànnoon Boun Dionne. vous avez un actif euh, relationnel qui fait que Boun mën na la ne sama booy. pourquoi. toppal sa grand. pourquoi nga nangu ko non mën na nekk. pourquoi kañ la xam Mohamed Boun waaw. kañ laa ko xam. waaw mais vous avez des relations. waaw mais kañ laa ko xam. ci Macky Sall nga ko xamee. waaw ah, loolu yàggul. waaw Amadou Ba kañ laa ko xam. non xaaral rek kañ laa xam Amadou Ba. non rek hmm. <laughs> xaaral rek. pourquoi ñoom mënuñ ma topp. Euh, non yow non yow laa fi am. Ah, waaw waxal bu ñu tànnoon Boun Dionne man jàpp naa ne mën nga ko topp. waaw. bu ñu tànnoon Amadou Ba doo ko topp bu ñu tànnoon Abdoulaye Daouda doo ko topp et bizarrement. man dama foogoon à l'époque Amadou Ba rek nga amal relation nga amal euh, problème. conflit man dama am problème ak Amadou Ba. waaw euh, jubawu leen woon. Euh, man pour man sama téléphone a ngi nii de mën naa la ko jox nga. xool non xaaral rek <laughs> pour man Amadou Ba rek nga amal nga jubawul woon mais Ablaye ñëw. yow yow finalement ministre des finances yi mënoo jubóog ñoom Moustapha Ba de moo si am chance xam naa sa il il n'est pas politique. Bosquet dafa cool nag aussi. Ah? xam nga Bosquet dafa ah, cool ah ñële cool ñu. xaw ma non mais Bosquet Bosquet. <laughs> ñële cool ñu non ñoom ñëpp on a jamais eu de problème. mais si yàlla non mais si yow ak Amadou Ba yaa yaa yaa un passif jubóowuloo ak Amadou Ba. mais man je rappelle que quand Amadou Ba a été nommé ministre des finances moi j'étais chef de centre des Parcelles Assainies. waaw ah. sama diggante ak moom état dafa bëri woon donc mënuñu am étage dafa bari woon mais vous avez eu un vécu au niveau des impôts et domaines. mais notre vécu c'est notre vécu. ah oui c'est notre vécu. mais de ce vécu là tu as retenu quelque chose. absolument mais si Amadou Ba yow mën nga concevoir si xam nga man nag ñëpp xamee nañ ma dëggu ci li may def wala wala xam nga bu ñu may jox loolu lañ lay wax. à la limite il pense il pense que c'est de l'arrogance c'est pas de l'arrogance parce que man tamit xam man doomu Casamance la man malheureusement li ma gëm rek laay def. wax naa wallahi lazim kanamu njiitu réew mi ma ne ko man du ma tarbiyu doomu aadama te loolu laa gëm donc li ma gëm rek laay def waaye ba léegi si j'ai un conflit avec Amadou Ba comment tu expliques que man ma dem seeti ko. dem seeti ko kañam. ah mais pendant cette période là il a deux semaines. waaw c'est ton patron. ah non non non je ah, je suis pas il fait partie de tes patrons. c'est le patron de ton patron. non ce ah. moment là déedéet ne conflit xam nga maag moom du ñu am conflit administratif parce la man fonctionnaire laa nee la man ak njiitu réew mi états yi dafa bëri ba ñemewuma ko jege bu dee le président de la république la man loolu laa xam man loolu loolu laa namp loolu mooy administration et c'est pourquoi d'ailleurs cette administration elle doit être renforcée elle est laissée en rade malheureusement mais il faut qu'on la renforce yaa ngi dégg mais dama la ne le premier ministre si xam nga man Amadou laa la wax si tu parles du premier ministre Amadou Ba n'importe comment tous les agents de l'État qui sont sous sa hiérarchie mais bu leen woowee dañ koy wuy ji en tant que président mais dew ma woon foofu en sa qualité de président dama fa demoon pour seeti ko parce que Amadou Ba a exprimé le besoin que ñu waxtaan parce que daf ma woo fekk ma nekkoon ci tolof tolof benn sama sama sama goro moo génn àdduna mu yónnee ma message parce que jotuma mu ne ma dama dama dégg dëj bi donc woo na ma parce que bëggoon na jaale si mais après teraanga parce que jamono jooju on parlait toujours de candidats qui sa se pas mais cëru mag ma jox ko ko ma dem seeti ko dem bureau ñu waxtaan ñu waxtaan ci candidature yi ñu waxtaan ci dynamique yi ñu jëm ma jógee foofu dem seeti Ablaye Daouda Diallo. bu ñu tànnoon Amadou Ba di di nga nangu. Mohamed Boun Abdallah Dionne. Hmm. Amadou Mame Diop. Serigne Gueye Diop madame Mbacké. Aly Ngouille Ndiaye Moustapha Diop Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba al euh, Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr sama doom de akan ak Mohamed ñoom ñëpp kuñ ci tànn il ma réfléchir. doo ko jàppale noonu. du ma ko jàppale noonu parce que tamit man mënuma man du ma nangu ñu vaar ma li ma gëm rek laay def parce que li ma ragalul wax ci njiitu kanamu njiitu réew mi du ko ragal wax feneen. est-ce que yaa comprendre li ma lay wax je lui ai dit je n'ai pas de loyauté à géométrie variable et que man nag je pense que aujourd'hui le legs de Macky Sall doit être préservé e que nag loolu dafa laaj aussi que ki nga xam ne dañ ko tànn on doit l'éprouver par rapport à sa loyauté au président de la République. waaw justement waaw waxoon justement loolu nga président. Ah, euh, non vous avez semblé lui faire comprendre que. Hmm. Euh, li nga doon def c' était pour euh, c' est dans son intérêt c' pour éprouver les candidats. non son intérêt mooy nga jàppale ko ci mu choisir le bon candidat. non non son intérêt c' est qu'on gagne en n'importe comment. justement ah pourquoi le schéma c' une candidature unique qui nous permet de gagner ku la ko di moi dans quelles conditions on peut gagner au premier tour. Si pou présentez deux candidats, vous ne serez on même pas au deuxième tour. Mais pourquoi? Vous ne serez même mais pas au deuxième tour. Alors que nous pesions 49% au moins xam nga, de l'électorat. Xam nga Macky Sall. Vous pensez que Macky Sall dina defal campagne kenn ci candidat yi te kooku du bokk deuxième tour. Waaw. <laughs> Macky Sall bu tànn bu tànnee candidature bu candidat bu baaxul. Waaw kan mooy ku baax ku baaxul. ak Euh, nu mu tudd euh, yenn liens yi ce candidat là ne sera pas au deuxième tour je veux comprendre vous pensez que ñooñu yëpp dafa am ay présomption de lien affectif ak ñeneen waaw te amu ko ak ñeneen waaw dafa am des candidats de raison am des candidats de cœur ah donc c'est qui les candidats de cœur ah yow xam nga ko yow nga bokk ci biir am na ñoo xam ne euh, nee nañ ñoo nekk ci xolu Macky Sall waaye nag ils n'ont pas beaucoup de chance xëy na kon man de man ma amul chance ah? parce que non xëy na ci ñoom am ah. parce que ñoom ñëpp ils ont à la table du conseil des ministres man ak Serigne Gueye ak Mame Mbacké ñoo ci am du cœur vous ne ma wax la rek bàyyi ma tudd leen waaw nee nañ Boun Abdallah c'est le candidat du cœur bu sa Sall bu sañoon moom lay doon Amadou Mame Diop <laughs> c'est le candidat du il fait partie des candidats du cœur sauf que Eh, euh, gars yi gars yi d' accord ne fait pas partie des candidats du cœur. kan Ablaye Daouda fait partie des candidats du cœur. Amadou Ba ne fait pas partie des. Amadou Ba bokkul ci candidat cœur yi. pour la Mame Boye Diao bokk ci. da nga Aly Ngouille bokk ci. je prends la responsabilité Ablaye Diouf Sarr bokk ci. et pourtant nag yow say météo yu ñu fi doon nag mooy ni tànnoon na ba pare de. tànn na kay keroog ñu fi ah kon donc n'a <laughs> oh la vérité là non non non la vérité ce sera. il va lui-même l'a dit il a dit personne ne me mettra la pression je ferai un choix de raison un choix réaliste. la la vérité ah. ce la vérité ce sera à l'issue du scrutin. quel scrutin. on peut du, pas du, mais vous oubliez que c'est pas Macky mais mais mais dis-moi. il faut aussi qu'on respecte les Sénégalais c'est eux qui choisissent le président de la République. Ouais, mais moi je parle du candidat le président Macky Sall. li mu am mooy une coalition et il faut qu'il fasse tout pour que sa coalition gagne mais c'est les Sénégalais qui choisissent si les Sénégalais décident qu'on a un seul candidat sax et qu'il l'élimine au premier tour on va faire quoi mënul nekk wala yow xam nga ni Sénégalais yi di voter mënoon nañ toog ñu am benn candidat Sénégalais yi nit kii duñ ko yóbbu deuxième tour waa léegi lu ñuy def booba waa léegi après on va se dire que ñun ñoo saboté peut-être et mais n'importe lequel j'ai dit n'importe lequel. Tu sais, moi j'ai... Est-ce que vous avez euh, effacé votre passif de, de, votre collaboration au ministère des, des, des Finances C'était tendu. Abdoulaye est quelqu'un qui ne m'appelle même pas Mambo Diao. Il m'appelle Mamoudou Diao. Mamoudou. C'est affectif. ah mais c'est que ce qu'on retient c'est que. Euh, yow ak Ablaye euh, yow au domaine Ablaye ministre des finances. Ah, loolu kay écoute vous êtes ah, ah, affronté ah, à travers des dossiers par presse interposée. par presse man euh, mës nga ay dossiers mais y y a eu des dossiers polémiques. yàlla daf ma j'ai le dos rond je supporte. ah mais y a eu des dossiers polémiques. je peux porter même la croix de Jésus je peux la porter parce que c'est pas eux c'est pas à eux que je réponds. man dafa am lu ñu ma dénk xam nga boo boo liggéeyee ci administration réew mi am ay corps de contrôle du tuuma bu ñu lay wax ci mbedd bi moo lay ton moo lay moo lay intéressé est-ce que yaa ngi li ma lay wax parce que aussi soit on est dans un pays normal qui fonctionne normalement ou bien da on est déedéet man géré ay campagne de presse man benn journaliste je défie quiconque benn journaliste du la mës a wax ni woo naa ko ne ko yàqal ma diw xam nga lu tax c'est les Sénégalais qui jugent et les Sénégalais ils ont une idée de toi te loolu nit ñi mënuñ ko dindi luñ la tuumaal xam nañ lan mooy porté presse ak lan mooy campagne de dénigrement ak lan mooy dëgg man lu ne dégg naa ko fi ci réew mi ma gëm ni suñu borom rek mooy atte c'est vrai je ne sais pas qui ku ko def dans tous les cas terewul man maa ngi retaan bi léegi maa ngi sant yàlla parce que maa ngi sant yàlla je continue ma carrière comme il faut. léegi qu'est-ce qu'on mais man yaa ngi may dugal ci campagne bi rek rek rek rek te man yaakaar naa ne loolu. moo oh, fi indi qu'est-ce qu'on retient. je dis candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar. et j'ai dit que à chaque fois. bu n'avez pas retiré votre candidature. vous n'avez pas signé de charte. vous n'avez pas renoncé waaw mais yow yow ci sa audience ak Macky Sall la. bul ma sigali benn engagement bul ma sigali ñu ne man maa kenn signé wul charte. waaw nag dañu ne ñu ci gën a bëri nañ nañ. il faut que ñu xool bu tànnee ba pare dafa am ñi nga xam ne dañ ne bu tànnee sax il faut que candidat bi wax ak ñoom man je vais réfléchir. ça ne m'appartient plus. Macky bu tànnee ba pare. Ah, yow la tardel sa émission bi. Macky Sall bu tànnee ba pare <laughs> yow. da ngay moo tardel sa émission bi. lan moo tardel. sa émission bi <laughs> sa gars yi ñoo la téye ah, ci bi. waaw ah, waaw kon kay jeex na je ne m'appartient plus. foo il faut écouter le souffle laaj leen. il le souffle du pays. en maa ngi dégg seen somb bi léegi Macky Sall. non il faut écouter les jeunes du pays. Macky Sall bu tànnee ba pare. Mhm. bu la tànnul da ngay continuer sa yoon. candidature tu veux quoi m'arracher les le du nez. dama dama bëgg a xam la su président tànnee su président tànnee dinañ toog ñu waxtaan. il faut qu'on réfléchisse man du man maa moom sama. donc yow yow tey joxoo Macky Sall cër boo xam ne. mais kenn ci ñoom bu dee kii la nga topp ci moom. mais si. non kenn ci audition yi ci audition de Moustapha Niass def. déglu ma Boun Dionne Amadou Ba ñoom dañoo wax ne président bu tànnee ñoom dinañ. topp waaw dama laaj président Moustapha Niass. waaw ah. maa ngi koy nuyu sama nijaay la xam nga. Hmm. mais dama la ne xam nga président moom moo wax ci boppam ne. da ngeen tënk woon ni lu ma def lu ma tànn ngeen d'accord koy maa ngi gis ku nekk xëccoo maa ngi dégg kii naan bu ñu tànnee diw du ma ànd moom loolu moom moo ko wax waaw donc c'est une réalité c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur aussi de dire la vérité c'est pas un problème moi je ne peux pas jouer euh, à l'autruche ici mënul nekk li am ba des mooy je suis certain d'une chose le président fera un choix et il pensera que c'est le meilleur choix pour la coalition du dëgg mais bu boobaa il revient à chacun de réfléchir de wax discuter moom moo war a waxtaan ak ki ñu tànn xool ndax mën nañu ànd te moi je suis dans cette disposition là. mais Mame Boye. Mm-hmm. bi ngeen di kitoo da nga ne di nga réfléchir. oui d' accord mais fii sur le plateau et je vous pose la question et je veux que vous répondiez euh, je pense que Macky Sall quel que soit le choix qu'il fera bu ko porté wul ci yow da ngay dem. ma même xam nga ne quand même xam nga nit buy ñëw fii dañ koy tàggat. <laughs> dañ la tàggat. ah mais bien sûr da nga teg ne man damay ñëw ne rek toog fi rek wax nga bëgg maa dugal du ma dugg mais ma du dugg man dama am ñu ma tàggat. vous n'allez pas me tirer les verres du nez yàlla xam ne li ma la wax nii laa gëm mooy président bu tànnee dafa am li war ki mu tànn bu dalee xel ñu ànd ak moom bu dalul xel ñu def leneen mën nga samp sa ndënd comme mën nga def ak ñeneen leneen. mais man j'ai espoir que le président fera